moom lay war a aw yaxalifu wala mu gëñ almatluba ka tuumaal bu fekkee yow andi woo seede ci li nga tuumaal moom dafay gëñ te set ay lu ma namu isaan kër na wedd na almatluba ka ñuy tuumaal alxaqa xaq bañ ak kawam watuuli ba ñu sàkku al muddaay aji tuumaal ja bi qaamatil baynati ci andi seede waaji sa muloo tax ci seede ga yow mi tumal ñii la indil seede nga lottu wa talaba musa sàkku me mu daay xale ci kany tumal tuumaal ali fu mu gëñ nga ne léegi ka ñuy tuumaal na gëñ ñi ne kany tumal na gëñ fay na nak nag ngëñ gi nag tu ta wajjaw dañ ko jublu àlla matlu ci kany tumal wo mo al mudda ali moy kany tumal ka halafa tuumaal fayn ndem gëñ na bari a na wa innaka lanam ragal nak beneen xaala mu ne laa axlifu du ma gëñ lam yoqu duñu attee li taali bi ñeen aji tumaaj la bi mu jëre di nukuulil matlu bi ci rafleeg daw ak dégg nga ragal ak kañ tuumaal ba li fi nekk ina yemee nag ngeen gi tata wajow dina jubala taali bi ci aji tuumaal ji te mi ko kalaame daal bu amul seede comme nañ ko waxee woon amoo seede moom dafay gëñ ta set bu ragalee gëñ yooyu du tax ñu jox la dëgg bu dee loo xam ne seede rek moo ci man dara bu ragalee gëñ foo nga indi seede rek kon bu waaj daanaka jërul gëñ loo sax dégg nga bu dee nag loo xam ne nii nag ngëñ mën na ci dara ni ki mbiru xaalis foofu mu oyofal lañ fa may may nañ fa ngëñ mën na fa dara boo amul seede ci xaalis ba nga ko tuumaal wala luy dellu ci xaalis su ko defee moom dafay gëñ te set bu ragalee gëñ ñi gëñ loola yow boo gëñee ñu jox la dëkk bu fekkee da nga ko tuumaal lu leer loolu yoon aw rudda wala ñu delloo alxasama ngëñ ga ala yi ci aji tuumaal ja filma li yi ci këjug alal ay maanaam mu àndal yemin nag ngëñ ga turaddu dañ ko delloo ala taali bi ci aji kalaame ja alladi bi nga xam ne aji sa lot naa ne iqaamatil baynati ci saxal seede baada nukuulil matlubi gannaaw ragal ak kañ tuumaal fay na xalafa nem gëñ naa laa tibqi daawaaw ci lu dëppoo ko wooteem nga xuddee ñu attiloo ñel ko bi su xam ne daaw woot na ko boo gëñee ne aw ma seede waaye sama alal ji moo ko jël su boobaa dañ lay jox dëgg ndax moom dafa ragal a gëñ su waaw moo xam kaana nekk na ay naan di kaay ka junayhin comme benn junay xaalis aw ak sa wala ëpp ko aw aqala wala mu gën a junay aw ardan wala muy marchandise ndax loolu ka jug alal la rek ka soobin comme yére aw xayawaanan wala muy jur ka baqaratin comme nag aw xayraha wala dul loolu aw aqaaran wala muy pàkk wa akama mu atte alqaadi aji atte jalal mudda'i alayhi ca kañi tuumaal bi daf yi ci joxe su boobaa boo gëñee kañ tuumaal dañ ko war a fayal in kaana nekk na al matlub lañ sàkku aynan di kañ xaalis na fay aw misli wala mu joxe ka ju kem bu dee lu ñuy natt la na natt lu toll noonu fay nekk fukki saako fukki kilo ceeb na ko natt fay wayen kaanam nekk na xaywaanan di jur aw xaqaaram wala pàkk waa ka mu àttee alqaadi àttekat bam alal mu day xale ca ka ñuy tuumaal bi daf yi ci joxe in kaanam nekk na al matlum la ñuy sàkkum ni ci wax aynan kay aw misleen wala ka ju kem déedéet wayen kaanam nekk na xaywaanan di jur aw xaqaaram wala pàkk xakamaat na xale yi ci moom binti zain mulkiyati ñu nocc nocc moomeel ga dégg nga woy nakk la nem ragal na maanaam bu fekkee xayawaan la wala jur ñu ne ko léegi moomatoo ko këreeku moom hmm? wala boo kañ la xaalis ñu ne ko delloo xaalis boobu wala lu ñuy nattale ñu ne ko nattalutul noonu joxe dégg nga loolu lay wax ne woy nakk la nem ragal nag taalibu aji kalaame ja ani yemini ci ngañ ga allati gi xam ne ruddal delloo nañ ko ilay jëm ci moom batale yàqu na daan waa kalaama ga fa la ba yem wasaqata doon na xaqu xaqam li na kóor yi ngi ragal gi mu ragal waa ji ak lottu gi mu lottu ay xaamati baynati ci taxal seede a seede andil seede nga bañ waa ji gëjal mu ragal yow ñëwee la gëjal nga ne ah ñememaa gëñ atte ba fa yem ndax amoo seede ñemoo gëñ li la waa ji gëñ di la jox dëgg. loolu nag isa taxamam mooy bu ko tuumaalee bu tuumaalee insaanan doomu aadama bi sariqati maalin si sàcc alal waan këram mu weddi. dégg nga ba li fi nekk laa bu dul mën ñàkk an yaxay fa mu gëñ mu gëñ almuttahamu kañ tu eh, almuttahimu aji tuumaal ja wala almuttahamu kañ tuumaal leebraa ngir mu set wala boo almuttahimu aji tuumaal ja leebraa ngir mu set wa wa yaxramu ñu fayloo leen leen muddaa ñeel kañ tuumaal almaal allazi alal ji nga xam ne ittahamu tuumaal na ko bi andoona moom sarixoo sàcc na ko dégg hmm? Hmm? daa mel ni tëb na laa daan wa tuhamide ci kii waaw Jokalante bi andi ko. anu la daxamatuam dégg nga waaw kay waaw waaw daal lii te dafa manqué waaw mu ngi nii waaw noonu وهذا اللي كله لف دعوة تحقيقك وتكدقل ما نعم لما لا واحد هذا ممكن تقول ما عندي تقول تقول كن بفك كده نكو دقل اللي موجز سأل مم أمور سيدة يا أمور سيدة مم رجل لا جن يو فهم جن كل جهلة لا دعوة تهم وياهم موتة ثومة أي بخلاف دعوة الاتهامي تقولك هو تثومة فإن حقه نجا لا يسقط ذرات bindu kuuli ci ragal gi mu ragal ñoom ñu ci ngëj ida taxama bu tuumaalee insaan doomu aadama bi sa raxati maalin sàcc alal waan kër mu wedd ba li fi nekk laa bu dul ma nekk andi xale fu mu gëj mu taxama kañ tuumaal li ngir mu set dégg nga dégg nga mu dana fay lil muddayi ñeen aji tuumaal ja almaana alal ji alal ji nga xam ne taxamoo tuumaal na ko benn na ko moom sa rek koo sàcc na o bu fekkee gëñut bu fekkee ne da nga koo tuumaan rek yow leerul la da nga ko wóoluwaat daal ci alal ci te gis ngeen ne jaxasoo woon ngeen dañ la indi seede ñoo ne ko gëñal mu ragal yow buñ ne la gëñal tamit boo ragalee lu tax ñu la ba jeex waa jën tuumaal moom foofu mu gëj pour set bu gëñu dana fay alal ci ndax yow mënoo gëñ parce que yow da koo tuumaal rek leeru la kon bu la wóoree na mu jël sa alal moom foo nga gëñ pour ñu fay la bu ragalee gëñ bu fekkee ne koo tumaaloon rek moom kooku mooy yow moom duñ la gëñ loo moom mooy gëñ bu nanguute gëñ ñu fayloo ko wala xam nga wóoruwaa de am na xam nga nit kooku ku wóorul wóorul rek islam da ngay bëgg ngay def lu wóor xam boo deful lu wóor lu wóor tamit nit ñi wóoruwuñ la nit ñi ñaawuñ jot yaa wóor yaa ngi seen li ma la bëgg maanaam rafet njortu ñu bëri dañ koy wax fekk xamuñ ko nit kuy def musiba noo ko wóoloo ñu naan rafet njort yi rafetoo njort dof bu doon ñaaw njort ci nit koo xam ne nii setul loolu dafa xaraam yonent bi sallallahu alayhi duñ ko wax ne ko yóbbul sa saxaaba yi naj di ñu jàngal leen mu ne leen mu ne leen wóoluwuma leen ci waa naj ndax damaa ñu lor ko boo demee benn waaye garanti ko boo demee duñ ko def duñ leen def dara maa la garanti mu dem rey saxaaba yi ni ko yonent bi njortoon noonu lañ leen xamul tax ñaawul njort ci waa naj de. dafa gis màndargaay jëf ju bon ci ñoom moo tax xel mi teey waaw ñaaw njortu mooy koo xam ne gisoo ci moom lenn luy wane ne kii dafa sikk nga taxaw di xalaat yu ñaaw ci moom waaye koo xam ne ne def na nag wax dëgg yàlla ay jëf yoo xam ne nii jar naa moytu te waaw na moytu loolu bi ñaaw moom la yonent bi doon wax naan wallaay laa yuman yuminu wallaay laa yuminu wallaay laa yuminu xiila man xaala man laa yamanu jaarahu boo ay xoo koo xam ne ay dëkkandooram wóoruñu ay xayam gëmut waaye nit tamit bu ko ñëpp joxañee wax nit ñu dëgg yàlla te ñu koy joxañ joxañ nekkul ñoo dañ ko añaane nekkul ñu ko kii ñë ay nit ñu dëggu lañ dafa jubul rek boo juboo nit ñi la ragal dégg ko jubul daal ñu ragal kon wa baada alfin gannaaw laa shuhuuda de seere tuqbal ñu di ko nangu bu fekkee nag yow dañu la indi seede amoo seede ka nga tuumaaloon ñu ne ko gëjal mu gëñ set nga indi ay seede duñ ko nangu illaa lisaan lu may ngir fàtte laa ñeel seede yi aw tijaar wala ñu réer ko bu dee nag gën dafa gëñ ba pare set nga indi ay seede ne ah damaa fàtte woon ne amoon naa seede mu ngi nii dinañ la nangul bu dee ne amoon naa ko waaye xaw ma ko moo tax andiwuma ko woon danañ la nangul seede yooyu dañ leen nangul jox la dëgg waaye bu fekkee n waxu ne da fàtte woon waxoo ne da ngaa xamutoon seede yi kon lan nga layee andiwoo seede waa ji gëñ la wax nga dëgg nga toog affaire kanam nga indiwaat seede ñee ne xanaa da ngaa fàttoon seede yi nga ne déedéet ñee ne xanaa da nga yow amoo dëgg loolu yëpp lu leer la wa baana xalfin laa suur de seede tuqbal duñ ko nangu ay du ma ne mu àndal mu daañu naka aji karaamika إذا طلب مساك مساك من جمع القاريات كتب أن يقيم مساك البينة سيرة تشهد بي سيرة الله نعك بسبوت حقي حقم فعجز ملوت وقال من لا بينة ديرك سيرة دي مانيال وطلب مساك القاريات كتب من المدعي عليه من المدعي عليه تكن تومال أن يحلف مجن أن يمين غن ليبرا في المسد وحلف مجن بالفعل تجفج مرا مجن وهكذا مؤتى الحاكم أتكتب ببراءة سيستم ثم جاءت في مدك almudda'i aji tuumaal ja baada zalik gannaaw loolu bi baynatin ci seede tashadu buy seede loo ñu ne ko bi su wuute xaq yi sax xaqam alal matlubi ci kañ tuumaal fay naa naka seede boobu laa tuqbal duñ ko nangu ba li fi nekk turaddu dañ koy delloo li xawli yi ngir wax gi wax awalan si njëlbeen laa baynata déedéet seede lii di ma ñeel tuumaal nga waa ji indi seede aw ma waa ji ne ko gëñal gëñ na. bu defee nga jaaral bi ko nag. bëgg indiwaat ay seede ne naa la duñ la nangu sa seede yi parce que yaa waxoon ne amoo seede wa taalifun muddayi muddaa gëñ loo nañ kañ tuumal alay ci moom allaji bi nga xam ne xàkk ma àtt na loo ñeel ko bil baraati ci set wala boo gëñ loo giñ gëñ loo kañ tuumaal biñ attee set bi sabab mu ngi ci sababu sa wax jooju yow wax jooju moom boobu mooy xabar bi dégg nga wax ne awma seede moo waral ñu gëñ ko ba attee ko ne set na nga bëgg indi waa seere duñ ko nangu lu may nga amoon ngant nag al uzru maqbulun ngant lañ ko moo tax ma ne illaa li nisyaanin lu may ngir fàtte laxaa ñeel ko aw tujaal wala ñu réer ko bu da ngaa fàtte woon seere sa nag wala da ngaa kooku dañ ko nangu ay lu ma namm illaa ida qaal lu mooy mu wax ne kaa nekkoon ne lii ñeel ma bayyinatun seede fa nasituha ma fàtte woon ko walam azkurha fàttaliku fàttalikuwuma ko illaa baada suduril xukmi lu may gannaaw génn ak atte ba bu ne ah, amoon naa seede ka waaye ma ko fàtte woon ba nga attee ba pare nag laa door a fàttaliku seede yi su boobaa dinañ indi seede yooyu xool buñ mandoo ñu atteel ku dëgg jilee waa ji gëñoon na ba set aw mu wax lii ñeel ma baynatun seede kuntu di ko réeree fa alimtuwaa ma xam ko ay dem ba tey baadal bu ne ah amoon naa seede waaye xaw ma leen woon gannaaw bañ àttee ba pare nag laa door xam ne nekk diw ak diw fekkee woon nañ ko xam naa ko ay na ba tey na rukk mi gannaaw àtte ga waaye mu gën ay yéen a gëñ a zaalik ci loolu boo ne damaa fàtte woon wala wala damaa xamutoon seede yi da ngay gëñ tamit lu jar a bàyyi xel la soo gëñee nag fa innahaa naka seede boobu tuqbal danañ ko nangu minu ci moom su boobaa danañ la nangul seede ba yaa ngi xam ne woo fa in shahidan nem seede na al bayyinatu seede alati bi nga xam ne jaa andi ci moom ala tibqi daawaaw ci dëppoog la muy oote xakkama àttina alal matlubi ca kañ tuumaal bi ma daaw ci la tuumaal na ko bii moom ak taalibu aji karaama ja bu fekkee nag seede yi dañoo ñëw la nga wax ñu dëggal ko kañ tuumaal dañ naan ko yaa tooñ waaye ji wax na dëgg na andi na seede fayn kaan ne nekk na day nañ di bor xukkuma ñu àtte xale ci moom bil xadaay ci fay bu dee bor la dañ ko daf ne da nga koo yoreel bor indi nañ nee la fayal wayn na samana siraatin wayn kaane la waa nekk de wayn kaane nekk na samana siraatin di njëgu marchandise xukkuma ñu àtte xale ci moom bi dafi samani ci joxe njëg bu dafa jënd marchandise bi bañ a fay indi na seede yu ko seedeel gannaaw ba ba mu ñàkkee seede sax nga gëm mu muñ tuumaal ba set moo indi seede yu seede ne dëgg dëgg nag jaayoon na ko marchandise mu bañ a fay ñu ne ko fayal xumaat at naa ci moom bi daf ci mu fay li rabbi a ñeel borom maas nisba wa hada lii kulloo lépp bi nisbati ilal mudda'i mooy ci kem aji tuumaal ci dégg wa amal mudda'a waaye kañ tuumaal isa radda bu dellooyee wala boog isa rudda buñ dellooyee al yaminu ngëñ ala taali bi ca aji tuumaal ja الذي جاء قمنا حاجة صلاتنا إقامة البينة التي تحوى سيره فعلا فمجد مجد وحكم أن يؤتي على المدعي عليه تكن توما البدا في سجخه فدفع مجخه ثم وجد طب مام بان ذلك دنا لول بينة سيره تشهد بي سيره لو يلقو بالقضاء تفاي فإن لو نكن يلقو القيام تخل بيات مم ورجوع أقدال على طالب تاجي توما لجا بأخذ ما دفعه سجل لم جحو لو يلقو li mu wax ne lii ka tuumaal la da bu woon lii atteeb ku tuumaal laa jàngale nii yaa tuumaal nit ki indi nga seere bu nga defee seere yi euh, laaj nga amoo moom mu gën nga door a am seere fekk da nga koo fàttoon wala da ngaa dañ lay jox dëgg waaye bu dee nag léegi yow dañ laa laaj seere amoo yaa ko tuumaal ne daf laa yoreel bor si misaal ñee la indi seere amoo su ko defee ñu ne ko gëñal moom mu ragal a gëñ xam ragal a gëñ gi teena xel tamit bu ko defee yow ñu delloo la ngëñ gi nga gëñ ñu ne ko fayal bor bi mu fayale ba pare am seede yu ñëw nag moom seedeel ko ne moom fayoon na bu njëkk danga koo tuumaan rek waaye moom fayoon na bor su boobaa atte bi duñ ko yàq de atte bi woy na waaye moom am na doolaa dem kalaame jiwaat ca attekat ba indi ay seede moo ne ne fayoon na ko ba pare mu tuumaal ko bañ àttaloon ko dëgg su àttekat bi xoolee seede yooyu gis ne waa ne su boobaa moom mooy taxaw taxawaay i karaama ji fii su boobaa dañuy jël li nga xam ne moom la fayoon delloo ko ko ndax fayoon nag ku bu njëkk ba pare yaa ko wax su ko defee loolu mooy euh, loolu mooy euh, ñu ajo woon ci bunt boobu foofu euh, ñu mottali ko inna salaam wa salaam tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu